Eh, parfait ah. waaw man damay wax rek parce que tamit euh, hôpitaux yi. Mhm. Euh, lii daal am dafa métti. Mhm. parce que man am naa suma tànk boo xam ne dafa feebaroon tànk bi moo damm. Mhm. mu hospitalisé hôpital principal. li ci tànk bi damm mu piqûre que insuline muy muy jëlaat ba léegi béy ko def dafa métti. xam nga ministre de la santé ñu ngi koy ñaan nañu dal hôpital yi. parce que man dama xamul ndax ay médecin sa nekk xaw ma ay infirmier xaw ma lan moo nekk si hôpitaux yi mais bu ñuy tegaatee dafa métti ku deewul bàgg nga dafa nag métti nag trop trop trop war nañ ci wax nag gouvernement bi daal war nañ ci jóg d'accord waaw d'accord waaw loolu laa bëggoon témoigner parfait parfait ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Seynabou ci ni nga ci euh, jàppee et puis on espère ak association bi nga xamante ni mu ngi nekk foofu ca France euh, ak ñi nga xamante ni ñoo ngi ciy liggéey di yóbbu souvent ay victimes pour ñu fay fajo dinañu àndandoo ak ñoom bu ko defee ñu jàpp ci cas Amy Seck li nga xamante ne ñoo ngi koy traité boobu ba tey ci à vous de juger ba léegi rek ñu àndandoo ak une spéciale suivi de cas pour terminer bu ko defee ñu xool naka lañ concrètement euh, lan la ñu jël décision defaral ko euh, ki nga xamante ni moo fi nekk depuis trois ans mu ngi am góom boo xamante ni wérul li tax moo amoon ko 2009 la woon demoon na hôpital di def opération euh, fibrome far malheureusement bi mu ciy jóge mu jural ko lakk-lakk ñaari tànk yooyu yëpp ñaari tànk yi nag ba fi mu toll nii mënatu ci dox normalement bu yeewoo sax du mën a dox dafay raam ba def ay activités loolu nag tax na boobu ba léegi ñu àndandoo ak moom ci à bëgguñu euh, kenn koo xamante ni invité nañ la ci émission bi euh, nga am loo xam ni dal na la mu dal ñeneen te duñ ci am solution donc duñ ci profité tout le temps ñu def euh, sensibilisation allo. oui bonsoir. bonsoir ñu ngi lay nuyu kooku. waaw. Tambédou yaa woote woon la dernière fois France merci beaucoup ah ci sa ci sa ci sa ci sa jàppale. Eh, parfait. toujours, euh, on cherche toujours la solution. On ne pas encore trouvée. J'espère qu'on va la trouver bientôt. au sortir de de de cette émission on on, on l'espère euh, donc j'ai une association qui qui par qui apparemment euh, mais vous savez pour faire venir quelqu'un ici en France euh, qui est déjà malade c'est trop compliqué. moi j'ai déjà essayé avec mon père ça fait la personne est déjà malade pour la faire rentrer en France. c'est trop compliqué. Il faut des garanties, quoi. D'accord. Et moi, je propose la dame qu'elle aille faire un devis. Il y a plein de gens comme moi qui veulent l'aider. Par exemple, si on savait elle vaut 1 million ou 2 millions ou 500 000, il y a plein de gens qui pouvaient mettre la main dans la poche pour dire écoute, million, on va l'aider à, à, le faire. on va l'aider. Mais là, on ne sait pas. On ne sait pas combien. Il y a plein de gens qui veulent s'y engager, mais on sait pas combien. que moi je propose qu'elle que aille voir le médecin qui pour lui faire un di qui, au moins euh, il vous faut ça pour soigner vos dépieds ou vos, vos, vos maladies, voyez donc ça encourage les gens, les gens qui vont l'aider, ça, ça, les encourage à dire, bon, là c'est 500 000, peut-être il y aura des gens aussi qui vont envoyer comme nous, comme vous, ça va avancer les choses. Voilà, euh, moi je propose ça, j'ai ça comme proposition aujourd'hui. Euh, l'association aussi, si, si, ils veulent continuer dans leur démarche, moi je veux bien euh, donner mes coordonnées aussi. Donc voilà, présent, moi, voilà, je voudrais bien aller jusqu'au bout avec elle, quoi. Je peux tout seul, je peux pas, je crois que j'avais donné la dernière euh, Merci encore. ñu ngi lay gërëmaat bu baax euh, monsieur euh, Tambédou. et puis rédaction bu à vous de juger dina ñëwaat vers yow bu ko defee ñu àndandoo waat xool naka nga ñuy jàppale pour cas bi nga xamante ni ñoo ngi koy traité maître fi mu toll nii nag bu fekkoon da jox ay ay ay ay ay ay ay conseils ak sensibiliser nit ñi surtout. Euh, ñuy bañ di toog rek. waaw en fait nooy euh, wax ci lool rek mooy nit ki déjà euh, comme cas bu mel nii koo xamante ne nii dem nga ci structure sanitaire am fa problème wala leneen ak leneen. déjà ci biir structure sanitaire bi je pense que am na ay responsables yu fa nekk donc y a également comme le docteur Bousso ni mu ko waxee keroog y a l'ordre des médecins. tout à il faut nit ñi également xam ni que. bon ordre des médecins mu ngi fii mhm. euh, ministère de la santé également am nañu inspection en fait euh, des surtout inspection des surtout sa sax ñu ngi doon jéem a jokkoo ak ministère de la santé mais comme toogaguñu woon. aussi ah euh, loolu moo tax. Mhm. waaw donc daal en fait parce que tamit nit ki tant que waxoo. Mhm. nit ñu mun kenn du mun a saafara sa jàngoro. kon bu bu nit amee jafe-jafe dafa war a wax. nit amee jafe-jafe. dafa war a wax euh, wala mu dem fu ñu fi nga xamante ne ni foofu yaakaar na ni foofu lañ ko mën a faje comme par exemple il des associations association bi wax léegi en fait des victimes d'erreur d'erreur médicale et d'accident de la circulation mhm. mais je pense que nit ki warul toog warul rek quoi parce mhm. que euh, toog sa ruq rek day tax mhm. en fait kenn et souvent comme on dit kenn du la mën a dimbali il faut nga génn de saafonteeg nit ñi di jéem informer tuuti également rôle boobu je pense également il faut que presse bi également lu gën a bari bari waaw c'est ça c'est extrêmement important d'accord d'accord mën ngeen di contacter je le rappelle de temps en temps rédaction bu à vous de juger bu ko defee ñuy jéem a xool naka la ñuy indee solution ci seeni problème allo. oui allo. salaamaaleykum. waaye maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu soxna si noo tudd ak fan ngay wootee. ba maa ngi lépp tur bi France lay wootee. d'accord ñu ngi lay déglu. Euh, voilà ba kaw ndaw si daf ma metti quoi parce que euh, je trouve que c'est pas normal que euh, dans. dans cette euh, année de 2000, 2000 euh, euh, que les gens euh, voilà, aient des problèmes euh, aussi, euh, aussi graves. Mmh. Voilà. Et moi, je trouve que les médecins, certains médecins au niveau du Sénégal sont des, sont des médecins qui sont incompétents. Parce que c'est pas normal qu'une table de, une table d'opération brûle comme ça les patients. Ça, c'est, je trouve que c'est inacceptable euh, c'est pas normal, c'est pas normal. Et je pense que le gouvernement d'aujourd'hui euh, devrait faire quelque chose pour euh, pour euh, remédier à, à, à ça. D'accord. Il faut qu'il y ait des, des gens qui sont vraiment qualifiés parce que ce médecin qui a qui a brûlé ces patients là, c'est euh, c'est un médecin euh, qui n'est pas qui n'est pas qualifié. Parce que quelqu'un qui est qualifié, c'est quelqu'un qui est responsable. Et quand les patients ont des des, euh, des problèmes comme ça, eh il faut trouver la solution pour qu'il pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes comme ça. Mais comme dans ce il y a d'autres patients qui, qui se sont... Euh, qui, qui, qui excusez-moi. Ils donnent le même problème. B. uh uh-huh. <coughs> Enfin, comme quoi, elle a dit qu'il y a d'autres patients qui se sont brûlés. Hmm. Et je pense que quand il y a un problème comme ça, il faut trouver la solution pour que ça ne se reproduise pas. là c'est c'est pas normal c'est pas normal que en plus ce qu'il y a c'est que hôpital moo waroon si en charge faj ko ba mu wër et là elle se démêle pour pour euh, pour pour pour euh, guérir je trouve que c'est pas normal c'est pas normal et il faut faire quelque chose c'est c'est, c'est pas un médecin qui est euh, c'est pas un médecin qui est <laughs> d'accord d'accord alors nous avons compris nous avons nous avons jot nañu comprendre fi nga fi nga fi nga waxee ak fi nga jëm am nañ ci aperçu c'est ça euh, li lañ ci bëgg ndax kenn ku ne am na noo xalaatee euh, li nga xamante ni ñoo ngi koy dund kenn ku ne am nga noo xalaatee par rapport ak solution bi nga xamante ni euh, ñoo ngi ko ciy xaar monsieur Tambadou par exemple nous a proposé deux solutions enfin ñaari options parce que bu fekkee dañ ko fi bëgg a jël di ko yóbbu tam dina metti bu ñu taxawee tam di xaar dina gën a metti ci moom alors ce qu'il faut sais que ñu ci bëri euh, taxaw ngeen euh, pour euh, jàpp ci et puis ñu jéem a éviter ñeneen ñi dund même jafe-jafe bi alors il faudrait que encore autorités yi surtout ñu bees ni maître de ah ñu gën a xoolaat de façon générale ah que ce soit hôpital muy tribunal muy école ndax nag li feebar ci dëkk bi bëri na xeetu bëri boo xamante ni des fois da nga naan est-ce que du ñu ko dénk ñoo ñàkk compétence fekk mën nañu am compétence sax waaye amuñu li Euh, matuwaay nécessaire euh, pour mën a def seen liggéey ci nu mu waree et je pense que loolu euh, bokkul ci luy yokk réew ca kanam ñu jël keneen ku nekk ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi wootee Milan. d'accord noo tudd. fii ci ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi lay remercier d'abord ci émission bi. c'est eh très intéressant vraiment. c'est pour vous yéen ko moom. te tamit Pape Cheikh mooy li may wax rek. Euh, cas bi dal ndaw si nii. Mhm. lépp justice bu ñàkk ci réew rek moo ko waral. yaa ngi dégg bu baax. ñu ngi dégg waaw. Uh-huh. allo. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay dégg Fall ñu ngi lay dégg. waaw parce que ñu ngi wax keroog erreur ñoom defe naa ñu ngi ko tuddee woon incident. Mhm. mais muy erreur comme muy incident normalement waroon nañ situer responsabilité yi. tout à fait. ndax keroog jox nañ la exemple defe naa bu Cuba. dëkk yooyu su lu mel ni amee médecin bi dana toog lu mel ni tribunal lay doon médecin bi dana toog ka yore instrument yi ci hôpital bi toog. ambulancier bi ñëpp dinañ toog. Mhm. ba ñu situé responsable yi ku ñu war a daaneel ñu daaneel ko sanctionné. Mhm. mais tant que réew nit ki day liggéey en toute liberté du ci xalaat benn sanction rek mooy waral négligence parce que loolu man négligence rek laa ko mën a tuddee. ndax ka war a liggéey ci instrument su ko xooloon. médecin ba préparé wu xool ba pare ñu fonk aussi doomu aadama bi ñëw te ñëw doole ñu war ko faj. Mhm. non normalement erreur yu mel noonu mën nañ ko minimiser trop mën na dem sax ba du am. Mhm. vraiment loolu rek laa amoon ci lu may euh, contribuer parce que maa ngi leen di sa xalaat rafet na euh, Fall mu ngi doon woote Milan donc maître pour revenir un peu ci li mu doon wax que sa soit njàng mi au Sénégal muy tribinal justice bi euh, muy wér-gu-yaram bi dafa mel ni li feebarandoo moo bëri. waaw en fait Pape j'espère que. en fait euh, ñi nga xamante ne nii ñoom la seen loxo nguur gi nekk seen loxo ñu ngi lay dégg ci côté côté boobu. Mm-hmm, mm-hmm. je pense également euh, man mënuma wax également gñnat ci ci ci lépp parce que awma compétence également ci lépp. Mm-hmm. bon mais mun naa observer rek déjà def constater. que par exemple comme ni nga waxee c'est vrai. il euh, y des problèmes dans presque tous les secteurs en fait, de, la vie sociale, tels que l'éducation, mhm. la justice ak santé. Mais en fait, euh, en ce qui concerne justice ak santé mhm. euh, dafa nekk œuvre humaine boo xamante ne il faut ñu koy maanaam di ko di ko perfectionner tous les jours quoi c'est important di ko perfectionner tous les jours ah, ah. parce que lépp rek mënut a jaar yoon d'accord balaa ngay àggali nga nga nga baal ñu jël ñu jël keneen ku nekk ci ligne bi balaa ñuy gën a yàgg allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Pape ngi lay woowee Suisse. d'accord noo tudd. bon damay def tur bi mais sa madame Ndiaye. madame Ndiaye da yow yow la ñuy déglu madame Ndiaye waaw. voilà donc euh, bu may seetaan seen émission bi je voulais juste euh, vous dire comprendre ma comment ça se hôpital bi ñuy def nii femme bi jëluñu ko en charge. d'accord loolu nga comprendre ok d'accord. waa parce que normalement ku nga xam ne danga dugg ci hôpital pour faj dara. Mhm. génn fa beneen jàngoo. fànn wala mu doon egsi seen émission sax ñoom quand même waroon nañu am responsabilité jël ko en charge et que problème yi bari na trop.